something, yes, I'm aware we are in the morning. I'm feeling good, say something, yes, I'm aware we are in the morning. Come on, feeling good, say something, yes, I'm aware we are in the morning. I'm feeling good, say something. du sport bi, um, comme li ma la wax rek, euh, entraînement bu baax wala exercice comme ñu ni koy waxee. ah dafa am cinq piliers yoo xam ne dafa essentiel pour vraiment nga def sport parce que ah, ah, ñëpp xam ne que pilier lu gën a important boo demee pour def sport yaa xam ndax da ngay da ngay da ngay dem salle musculation wala nga yëgal sa pas cinq piliers la am mooy ah, force mooy numéro 1 deuxièmement bi mooy endurance musculaire troisièmement bi mooy nga augmenter sa fonction cardiovasculaire mooy cardio bi ni ci wax euh, euh, quatrième bi moom mooy nga nga nga augmenter sa flexibilité ak sa mobilité dafa am solo tamit ak euh, cinquième bi moy vraiment nga réduire ce risque de blessure buñ la waxé lolu manam bo amé musculation bu baax ñëpp xam ne sa joint yi sa ak sa sa sa sa ligament yi du yàqu donc en en lolu yëpp boo ko mënee am ci am na ben entraînement bo xamné rek moom mo la mun joxando lepp comme ni ma la wax am da ngay amaale cardio da ngay endurance musculaire da ngay amaale augmentation de de de de cardiovasculaire fonctionnement bi dafa am solo ak euh, mobilité bi bi ñuy wax ak mag loolu yëpp xam que sport moko ko jox moy musculation donc buñ de la musculation ñëpp day daw ne mais musculation même avec ce poids comme ñuy wax Sénégal naturel c'est de la musculation tout ce qui est un effort physique euh, répétitif mun nañ ko considérer comme musculation Moi, du genre si vous escalier ça nga ko yéeg di wàcc rek c'est de la musculation ah récupération bon récupération moi égal euh, à nelawa ah. man parce que la mort, parce que nous prenons le corps se euh, se répare ah, au sommeil so nelaw bi dafa am solo actuellement ni Sénégal gars ne dorment pas beaucoup

ba pare euh, même sax yow booy def sport te amuloo récupération nelaw bu doy doo doo mun am euh, euh, doo mun a am masse musculaire so comme li la wax rek minimum war nga am entre entre six ba huit heures minimum ba dix heures boo ko munee am ci ci ci sommeil donc il est préférable nga am nelaw guddi you I bu la waxee nelaw guddi mooy vingt une 4 h du matin même 6 heures de temps tu dors bien parce que ça yaram mouille, tu dafay répondre normalement à ngay soxla quoi. ay C'est dañ plat du jour Hein. plat du jour tout ce qui est sucre c'est ce qu'on mange en général euh, chaque jour peut-être que euh, ñëpp amuñu amuñu information bi parce que boo xoolee bu baax sénégalais bi euh, ñun bokk dañuy xalaat sucre bi mooy sucre bekk bi rek quoi donc euh, lii moo ci gën moins dangereux sax je veux dire parce que parce que il mun nga ko contrôler mais boo xoolee bu baax ceeb bi ak ak ak fruit bi ak fruit bi ak café bi ak ak pain bi tu vois ak vermicelle bi ah ak ak boisson gazeuse bi ngay gis ak ak ak bof jus wax nii quoi donc lii problème bi yëpp boo ko xoolee bu baax ñun on consomme beaucoup beaucoup beaucoup de sucre lii moom mooy contribuer son obésité ak moom mooy contribuer aussi tout ce qui est euh, maladie cardiovasculaire yi ngay dégg nii tu vois ce que je veux dire parce que boo xoolee bu baax euh, euh, ceeb bi am na ñoo xam ne dañ koy añee dañ koy reeree ah, am na ñoo xam ne mënuñu lekk seen kër te duñu lekk frite am na ñoo xam ne pain bi moom moom lay ndékkee moom lay reeree ah, café bi on en consomme beaucoup parce que bo xolé bu café par exemple pour le sucre ko minimum des fois 4 ah, ba 5 becs. Imaginez que vous ci 5 par jour ça te fait minimum 25 25 bec sucre ci café donc euh, c'est compliqué madame alimentation ñu wax ah, la mo ci gëna graw amu ben fibre nous ñëpp xam ni fibre moom mooy contrôler sur alimentation ci